Allahu sant di leen gërëm aussi di la dalal jàmm ci euh, LL boutique LL boutique boutique la boo xamante ne ñu ngi yëngu ci parfumerie euh, ak vaisselle ak électroménager euh, ak assurance ak transaction yu bari dañ koy def donc mais na suñu dorom le plus fort dañ gën a basé wu c'est la comment dirais-je ak assurance tout ça dañ ci yëngu ci lépp mais vaisselle lañu ëpp la ñuy àndee chaque année dañuy def pour ñi nga xamante ne pour traiteurs yi am nañ seen i c'est-à-dire ay chafing dish ay font ten aussi ay table yi nga xamante ne donc c' est euh, large de 1 mètre 80 donc pour dressage boo xamante ne day large aussi ay tapis yi ñu laal aussi ci table dressage aussi de rideau yoo xamante ne nga koy laal ci say euh, def ci say salon euh, avec design boo xamante ne bu rafet quoi à part ça aussi am nañ ay termouche am nañ ay verre pour boisson am nañ aussi ay panier de fruits am nañ aussi ay support de moussoir ay mixeur mixeur de 6 litres et de 12 litres thermosis ça va de 10 litres jusqu'à 1 litre aussi des fontaines comme ni nga ko gisee nii aussi euh, am nañ fontaine yi aussi boo xamante ne ver la en ver la ak euh, plateau pour euh, exposer aussi ay croissant tout tout sorte de plateau yi nga xam ne bëgg ngeen ko ak ñi nga xamante ne dañuy conserver aussi seen nourriture am nañ aussi comment dirais-je pot pot sucre bi nga xamante ne 17 17 pièces aussi dañu jaayee glacière aussi yu ci bëri dañ am nañ ko termus ak xeet yëpp boo xalaat ci vaisselle rek boo ñëwee fii da ko fi fekk avec des prix très abordables parce que on vend en gros en général waa dañuy dañuy jaay en gros di jaay détail bu dee ci parfum aussi am nañ euh, toutes sortes de marques de parfum yi nga xam ne jógee Dubaï yëpp am nañ ko comme ni ngeen ko gisee nii suñu ginnaaw lépp luy xeetu parfum yu jógee Dubaï am nañ ko ak seen xeetu cuuraay lépp lañ ci jaaxal boo ñu ko laajee am nañ ko. am nañ uddu yi am nañ yar ak ay xayaat yi ak euh, yu ci bari daal mënu ma nekk fi di ko si mais nag yi nga xamante ñoo gën a ñoo gën a siiw am nañ ko aussi am nañ ay huiles. yii aussi bii comme ay brune la quoi cest à ñoo gën a moins cher mais aussi am na mën nañoo tenir comme période de salaire bi ñu nekk dafay neex quoi am nañ huile yoo xamante ne aussi euh, day sakkanal parfum boo ko defee day mel ne comme si da nga laal parfum bu cher alors ko donc c'est à bas prix donc am nañ ko aussi comme genre bi coffret yi yi moom macha allah mën na def comme cadeau ay yooyu mën nga jox ko sa sëriñ aussi yëpp mën na ci dafa rafet boîte bi rek jar na jar na ne <laughs> aussi bi aussi ay marque la comme li ma la mënuñu cité yëpp yi comme ci marque yi ñoom xayaatu ñoo ne ci ginnaaw yëpp ak cuuraay am na lépp am na aussi tamit cuuraay boo xam day ànd ak gaamam parfum cuuraay lépp au complet aussi yemuñ aussi tamit di jaay fii pour Touba kese fépp fu waay mën a nekk boo ñu commandé ñu livrer la ñu ngi Nord Foire euh, ñu ngi Nord Foire en face euh, Auchan Auchan et Bristol bi nga xam ne ñoo dend foofu lañ nekkee. ku ñu bëgg a jot mun nga ñëw am nañ carte visite bi mun nga ñëw woo ci 77 564 35 59 wala 76 270 12 70 wala aussi 77 158 56. comme li ma la rek euh, dañuy jaar aussi électroménager façon lépp ci wàllum électroménager micro-ondes congélateur frigo donc euh, euh, comment dirais-je cuisinière aussi machine à laver lépp loo bëgg ci wàllum électroménager boo ñu ko laajee am nañ ko. aussi ci wàllu assurance tamit mën nañu defal assurance en ligne defal la ko comme ni nga ko bëggee envoyé la ko par sa assurance sans aucun problème. Hmm. kon ñu ñëw parce que dañuy dañu am habitude naan foire lu man lu cher la ñuy jaay jaayuñu lu cher sincèrement parle parce que li tax ñu déplace c'est-à-dire ñi nga xamante ne am nañ am nañ euh, comment dirais-je euh, euh, bëgg nañoo ñëw Dakar pour gis seen articles yi te du ñu mën am accès ñu yombal lañ au lieu que ñu déplacé ñu déplacé wu ànd leen seen produit kon li ñu di wax mooy ñu ñëw buñ ñëwee dinañ jox prix abordable ñëpp ku ne mën nga cee mën nga cee bénéficier wu jaay ku ne ku riche rek non dañuy jaay ku riche dañuy jaay ku ku ne façon bi nga bëgg rek sa doole sa sa sa njëgal te danga am lu rafet am loo xam foo ko teg tam ñu respecté la. oui ça va alhamdulilah ça va alhamdulilah ñu ngi ñëw nànk-nànk mais ça va ah, donc di jaajëfal ñëpp di ñaanal tamit euh, ñëpp yàlla ñëpp am jàmm ah, te donc ñu yàgg def fois rek di ko yàgg def te yàgg ci am tamit ay réussite di ñaanal tamit ñi nga xamante ne am nañ yitte gi pour ñëw yàlla defal leen xéwal ba lépp lu ñu ànd fii rek ku ne gis sa bopp am ci am loo terale sa waa ah, ba euh, di la jaajëfal yéen tamit ci seen seen taxawaay rafet na lool waa académique de TV wax dëgg jàpp ngeen ci foire bi donc ci annonce yi ci lépp gis nañ démarche yi ngeen def yàlla na yàlla suñu borom gën a jàppale ngeen dem ba am tele bu rëy rëy rëy rëy waaw ñu dégg la doon ngeen nekk de renommée internationale ci barki Nabil Moustapha jërëjëf merci beaucoup